bismillah inna waliyallah laa xawla wala xuwata illa billah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax man seen mbokkum taalibe xaadim silla maa fas yéene ànd ak ki nga xamante ni mooy sëñ Kajaali yi si émission xayaatu rijaal xam naa dama koy jox mu dugg présenté wu
asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax sëñ xaadim di ko jaajëfal bu baax ci dalal bi ñu dalal di ñaan suñu boroom defal ñu leerub làmmiñ yi nga xam ne ba lu ñuy wax yëpp dina yomb a dégg te nit ñi dinañ ko ñëpp dinañ ci mën a jëriñu daal ci dund ki ñuy fas yéene waxtaanee tey jii kon bisimilah.
alhamdulilah jërëjëf sëñ Kajaali ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax bisub tey bi ñu ngi ci fas yéene waxtaanee sëriñ Seydatu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu moom lañ fas yéene waxtaanee am naa dañuy jox sëñ Kajaali mu présenteel ñu ko.
kon allahuma salli ala Seydina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñu ngi jaajëfal bu baax sëñ xaadim ci laaj bi ñu laaj mooy naka la présentation wu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib suñ doon wax kan mooy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib dañ naan moom mooy bàyyi tëxu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydina Hamza Abdul Muttalib mooy waajuram mu góor Abdullahi mi nga xam ne tamit mooy waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Muttalib mooy waajuram kon nañu wax ne bàyyi la si moom ba tey Seydina Hamza Abdul Muttalib moo ko jur mu bokk si waa Hash waa banu Hashim bokk si waa Xuraysh buñ doon topp càllaleem dañ naan Hamza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf ba ba ba li si des yëpp moo ko bokk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waajuram bu jigéen mu ngi tudd xaalata bintu Wuhayb bu ñu xoolee bu baax tur boobu dañuy gis ne day bokkaat ak yonente bi ci côté waajuram bu jigéen soxna Aminata bintu Wahbin moom it day bokk ak waajur bu jigéenu Seydina Hamza foofu nag day doon ci moom dañuy doon ay cousin ni ñu ko mun waxee ay cousin la ñuy doon ci côté seen yaay ñoom ñaar kon dañoo jege lool ndax waajuramu ji yu jigéen seen waajuru jigéen ñu ngi bokk ci waa ci waa banu Zuhra waaw kon moo tax dañoo bokk ñaari yoon ci waajur wu góor bokkaat tamit ci waajur seen i waajuru jigéen waaw Seydina Hamza moom la ñuy wax ne moom mooy asadullah wa asadu rasul mooy gaynde yàlla bi di gaynde yonente bi ndax njàmbaaram ci xare yi njàmbaaram ci taxaw bi mu taxaw lislaam ak taxawaayam daal ci ci ci ci woote lislaam ak ci yaatal ko ak ci tamit aar lislaam kon loolu yëpp dinañ ko gis ci biir waxtaan bi am na it ñu koy woowee sayidi sayidi shuhada mooy kilifa walla sangub ñu shahid ñu shahid ñi kon ñu ku shahid moom gis nañ ne daraja bu kawe layam fa suñ borom mooy bu faatoo ci xare ak ci yeneen anam yi nga xam ne yonante bi indi na ko ci xadis waaye bi si gën a kawe mooy ki faatoo ci xare dañ naan duñ ko sax sang dañuy ñëw rek denc ko noonu ndax àjjana nu ngi koy yàqamtee ak tamit malaaka yërmande nuñ leen di yàqamtee kon loolu it day wane daraja yi képp koo xam ne da ngaa shahid ci xare Seydina Hamza nag nekk seeni sang kon loolu yëpp dinañ ko gis ci kanam moom it mu doon ku jege yonente bi mu jegee yonente bi ci deret ak ci askan noonu it la ko jegee ci pas-pas noonu it la lañ fonkante woon noonu la fonke woon yonente bi yonente bi tamit fonk ko bëgg ko lool waaw kon loolu mun nañu wax ne ci tënk bu ñu doon présenté Seydina Hamza ci lii daal mun nañ ci yemagum lu ci des yëpp ci kanam dinañ ko gën a yaatal incha allah.
jërëjëf sëñ Kajaali kon dañ lay bàyyi rek nga dugg ak ñun ci fi nga xamante ni maanaam mooy mooy mooy dundam laata muy dugg ci diine islaam nga yeesalaat bu baax a baax tamit maanaam jamonoy ndawam maanaam nu mu doon dundee.
waaw jamono laata moo dugg ci lislaam mun nañ tàmbalee eh, ci jamono bi muy nekk toll ci ndaw ci zaahir mun nañ wax ne mook yonente bi daanaka ci ay at ñoo xawoon a maase ay at moo waraloon bi ñoom eh, ñaar lañ yóbboondoo ci eh, alimatu saadiya foofu tamit day doonaat tamit beneen beneen jegle ci moom ndax ni muy jege yonente bi ci deret ñu bokk pas-pas bokk lépp tamit dañuy bokkaat ci ki leen nàmpal kon loolu tamit lu foor la woon ci arab yi koo koo xam ne sax jege woo leen deret sax waaye boo leen bokkee ki ki leen nàmpal rek da ngay mel ni mbokkam ndax loolu arab yi dañ ko fonkoon lool mooy li ñuy wax frère de lait loolu lu ñu fonk lool la bu dee nàmpandoo ak kenn ci ci ci ci benn soxna comme ku ci mel ni soxna alimatu saadiya kooku da nga koy fonk bu baax jàppee ko sa mbokk kon loolu it bokk na ko ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alimatu saadiya biñ demee ba si yàgg ñu bokk nekk ci kër abu taalib mu mu mu mu mu yar leen mooy maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa abdul muttalib ma mooy maamam waajuru Seydina Hamza gis nañ it ni Abdul Muttalib fonke woon yonente bi sëtam boobu fonk ko ba daanaka Seydina Hamza ay doomi boppam sax yonente bi la gënoon fonk ay doom doomi boppam kon mun nañu wax ne ci benn kër lañ màgg màggandoo biñ demee ba tàmbalee màgg tàmbalee dëgër Abdul Muttalib bëgg tamit ñu ñu ñu ñu ñu dëgër mën na it bu dee seen giir am na ku leen song ñu am ñu dëgër ñu leen mën aar moo waral jamono jooju arab yi tamit dañ daan tàggat seen doom ci wàllum xeex wàllum jaasi ak wàllum lu si mel ni bëre ak yooyu yëpp dañ ko daan tàggatu Seydina Hamza nag ku si ku si amoon kàttan la ku ko mënoon lool la da mënoon na jaasi lool bi muy nekk ndaw am kàttan mënoon bëri it lool kon noonu la ko àndee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem màggandoo ba toll ba jamono bi nga xam ne yonente bi waroon na denc soxna Khadija foofu tamit seen lien foofu day gën a feeñaat ndax bi ñuy dem di ñaani soxna si waa banu Hashim dañoo dañoo dañoo yebal Hamza lañ yebal mu dem représenté waa banu Hashim donte sax ndaw la woon amoon na sax ñu ko gën a doon kilifa si waa banu Hashim waaye moom lañ yebal kon loolu tamit day wone tamit seen jege ñoom ñaar moo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu taxoon ñu yebal ko it mooy ba tey Hamza rakkam bu jigéen bu tudd Safiya ku ñuy wax Awaam moo ko denc Awaam waa banu Asad la moo soxna Khadija ñoo bokk kon moo tax it ñu ñu ñu ñu jege bi mu jege tamit soxna Xadija tamit tax na ñu ñu ñu yebal ko fa bu ñu tuddee awaam rek suñu xel day dem ci Zubayr soxna Safiya moo jur Zubayr ibnu awaam kon foofu tamit day wane ne moom it ba tey daa jege ku ñu Zubayr mun nañu wax ne mboolem jullit ginnaaw yonente bi it mboolem saxaaba yi nga xam ne ay saxaaba yu mag lañ bokk nañ ci fukk yu gën a yi nga xam ne ñoom lañ bégalee àjjana yu ëpp daraja jege na si ñu bëree bëri ci xureesh rek jege na leen bu baax rawatina Zubayru ak Saad ibn Abi Waqaas comme ni ñu koy waxee woon sànq kon loolu yëpp day day day day day dugg ci laata moo dugg si lislaam ak jege bi mu jege tamit ay mbokk yi nga ñi nga xam ne ñooy mujj doon yi ay mbokk ay mbokki pas-pasam ci saxaaba yi ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey Seydina Hamza bi mu demee nag ba tàmbalee sanc kër li muy doon li doonoon mun nañu wax ne yëngoom moo nekkoon rëbb da daan rëbb du dem ci àll bi rëbb ay mala yi nga xam ne moom la nit ñi di di di jëfandikoo ak yooyu walla rëbb yoo xam ne mala yi nga xam ne dañuy soxla seen der ngir liggéeyee ko defee ko ay tapis ak yooyu moom daal yooyu looloo nekkoon liggéeyam. rëbb la woon daal moo ku daan yàgg ci àll bi la woon saa su daan ñëw rek màkk rek day dem tawaaf ci kaaba gi ba noppi doog a àgg këram kon ñëpp xamee woon nañ ko loolu xamee woon nañ ko ku ñeme wéet ci àll bi xamee nañ ko it fit xamee nañ ko njàmbaar laata moo dugg si lislaam waaw waaye njàmbaar boobu it teewut tamit nekkutoon koo xam ne fu mu toll rek da dafa ragal lu woon waaye ku baax la woon ku lewet la woon waaye ku daan tooñ moom ku euh, tooñ daal la daan bañ bu buñ tooñee ku ko jege rek ci lañ daan xam xadaram ak kàttanam waaw kon mun nañu wax ne loolu moo nekkoon ci ay yëngu-yëngoom laata moo dugg ci lislaam Mm.
waaw kon dañuy woy rek nga leeralal ñu bu baax rek euh, maanaam ci yenn anam la Seydina Hamza duggee ci diine islaam
waaw yonent bi bi muy tàmbalee woote euh, ci màkk loolu mun nañu wax ne lu si ëpp fekku fa woon Hamza fekkoon na ko fa sax màkk waaye euh, comme niñ ko waxee sànq lu si ëpp da daan génn màkk nekk ci àll bi di rëbb da daan dem di ñëw dégg na woote bi waaye euh, teelut a dugg ba benn bis euh, mi jég mu jóge mu jóge ci fi muy rëbbee di ñëw bi muy euh, laata moo agsi dafa am xew-xew bu am bi nga xam ne loolu moo gën a sabab duggam ci lislaam yonent bi dafa daan faral di di di ñëw ci wetu kaaba gi di julli di ñaan wala di waar nit ñi di leen woo ci lislaam bis boobu nag dafa demoon euh, ci wetu kaaba gi ci buntu bu jege euh, montagne Safa foofu la toogoon di ñaan suñu boroom euh, Abu Lahab mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne noonu lislaam la woon bu gën a tar ci yonent bi gën a bañ jullit ñi euh, gën leen daan leen gën a sonal moo ñëw rekk taseek yonent bi foofu yonent bi toog mu gis yonent bi moom kese toog fii foofu la nekk di wax yonent bi wax yu doy waar wax ko wax yu ñaaw yonent bi tontuwu ko am na sax ñi nettali ne dem na ba dóor sax yonent bi waaye li gën a wér daal mooy kàddu yu mu euh, kàddu yi daal euh, taroon na lool te ñaawoon na lool yi mu doon wax ci yonent bi yonent bi mujj jug dem ñibbi waaye tontuwu ko ba tey amoon na benn soxna bu ko fekkee soxna soosu benn jaam bu ñu goreel la woon jaamu Abdullahi ibnu Judham la tuddoon euh, soxna la woon yoo xam ne fekkee na lépp dégg na kàddu yu ñaaw yi moom it mu metti ko lool bi yonent bi jógee di dem rek ci la seen Seydina Hamza di ñëw Seydina Hamza ni ñu ko waxee sànq saa su jógee ci rëbb fu fu muy rëbbee rek day ñëw laata moo dem këram day ñëw wër kaaba gi doog a dem bi mu ñëwee nag soxna si dogaale ko ne ko sànq de euh, am Omar ibni Amr ibni Hicham mooy Abu Lahab Abu Abu Jahlin fii la newoon daal di wax lu ne yonent bi wax na ko wax yu ñaaw waaye yonent bi tontu ko dem yoonam ci saa si Hamza am lu ko metti lool dem nag fii ci wetu kaaba gi ci ëttu kaaba gi fi nga xam ne foofu la euh, lu ëpp ci ci waa màkk daan toog ci kilifa yi mu fekk leen fa fekk abu jahlin won ko ginnaaw dafa jël euh, euh, arc bi mu yoroon dóor ko ko ci bopp dóor bu bu metti sax ba noppi ba abu jahlin bu muy tourné ba xool ko mu ne ko na nga bul fàtte ne maanaam euh, yonent bi duñ ko bàyyi noonu ku ko laal rek ba tey rek dina dina am ñoo xam ne dinañ ko dinañ ko aar waaw mu ne ko bés ni ki tey na nga xam ne it li mi gëm laa gëm waaw kon noonu la Seydina Hamza duggee ci lislaam dafa doon aar daanaka jarbaatam aar yonente bi di ko défendre foofu la nag wanewaale duggam ci lislaam waaw duggam boobu tamit am na am na ay commentaires yu bari yu ci am mooy nit ku ne rek mun naa duggee nu ne ci lislaam suñu borom buy dugal sa xol iman nu ne la koy dugalee ci iman mun na yonente bi mun na laa waar ba nga dugg mun nga ñëw esprit partisan dugal la si nga nga ñëw yonente bi li nga bokk ak yonente bi tax nga faral ko ba far lislaam dugg sa xol nu ne daal la ngëm di duggee ci xolu jullit kon noonu la Seydina Hamza duggee ci lislaam xam ne ñëpp yëg ko mu doon tamit ndam lu rëy ci lislaam loolu tamit tax na it eh, wàññi na lu bëree bëri ci lu waa màkk doon def mettital jullit ñi ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
waaw jërëjëf sëñ Kadiali kon dañuy gën a xuusaat ci waxtaan bi rek nga ñëw ak ñun maanaam ci Seydina Hamza eh, ginnaaw eh, ba mu duggee ci islaam maanaam eh, eh, lan moo nekkoon taxawaayam ci diine gi
waaw Seydina Hamza nag bi muy duggee ci lislaam dafa mujj doon koo xam ne daal dafa taxaw diggante euh, diggante noon yi diggante jullit ñi ak noon yi lépp lu noon yi doon waaj a def ci lu bon ci jullit ñi moom mu taxaw fas yéene fas yéene leen aar fas yéene see taxaw tem waaw ba lépp lu yonente bi it yittewoo mu taxaw si bi mu duggee si lislaam ba Seydina Omar it dugg si lislaam uh, foofu la njëkkee gis eh, jullit yëpp fësal seen ngëm génn def ñaari sàppe um, benn sàppe bi Seydina Hamza jiite ko beneen sàppe bi Seydina Omar jiite ko yonente bi ne seen digg ñuy dox jëmee jëm ci kaaba ga wër ko def fa seen jaamu yàlla te kenn sañu leen laal loolu lu ko waral mooy ñaar ñu ñu gis ñaari jëmm yooyu muy Seydina Omar ak Seydina Hamza ndax xamee nañ leen seen kàttan ak seen dëggu ak seen taxawaay kon loolu Seydina Hamza participer ni si bu baax a baax bi gàddaay bi jotee it Seydina Hamza bokk na si ñu njëkk àgg Medina bi muy àggee it mun nañ wax ne bi yonente bi di boole lansaar yi ak muhaajiroon yi ak yooyu di leen di di di sos foofu ab mboqoo seen diggante diggante lansaar yi ak muhaajiroon yi moom da ko boolewaat rek ak ki mi gën a bëgg ki yonente bi gënoon bëgg muy Zeyd Zeyd ibn Xaaris kon ñoom ñaar la boolewaat rek ne ba tey kii mooy sa mbokk dafa jël loxo Seydina Hamza ne ko sa mbokk mu ngi nii muy Zeyd kon loolu it day wonewaat cofeel gi mu amoon ci moom waaw Euh, ginnaaw loolu it xare bi nga xam ne moo njëkk am ci lislaam donte am na ay werante mm, ci ci kan lañ jox raaya bi waaye li si li si ñëw li si ëpp dañ naan Seydina Hamza lañ joxoon raaya bi moom lañ yonente bi njëkk yebal waaw laata xare Badar la saraaya la sariya la boo xam ne yonente bi daf ko yebal ngir ñu dem dogaale njëgg bi nga xam ne aboo jahlin moo ko jiite woon biñ demee ba war a xeex am ku dox seen diggante fexe ba ba ba daal xeex bi amut koo xam ne dafa xarite woon ak ak waa màkk am kóllëre sëgg kóllëre yi kóllëre ak jullit ñi moo tax xeex bi amut kon mun nañu wax ne drapeau bi ñuy njëkk fas wala ci drapeau yi ñuy njëkk fas ci lislaam ci eh, te yonente bi yebal leen ci xare moom moom lañ ko jox wala bokk na si ñuñ ko jox ndax eh, sariya boobu dañuy werante ndax ubayda ibn xaaris lañ ko jox wala moom waaye lu si mënti doon rek mooy moom bokk na si ñu ñu njëkk a jox euh, raaya euh, xare ci lislaam ñaareel bi mooy taxawaayam ci xare badar xare badar euh, bi muy am ba jullit ñi waaj dem fas yéene euh, dogaale caravane Abu Sufyaan bi ba euh, ni mu demee daanaka euh, nettali nañ koy yoon yoon biñ demee ba xeex bi am ci biir xeex bi njàmbaaram fes fës na si bu baax a baax ci biir xare bi ndax moom bokk na si ñu njëkk rey ab yéeféer tamit ci biir xare bi moom moo njëkk rey sax ndax ki ñuy wax al aswad ibnul abi aswad moom moo ñëw bëggoon naan si teen bi Hamza moo ko dogale euh, do- go- euh, gor tànk bi euh, mu faatu biñ demee tamit ba yéeféer yi génn di laajte duel Hudba al walid ak Shayba bi ñu génnee ba euh, ñoom tamit euh, yonente bi tamit yebal Ubayda ibnu Xaaris Seydina Hamza ak Seydina Alun Hamza tamit moo njëkk rey euh, Hutba rey bu gaaw looloo waral doomam ba Hind mere ko Seydina Alin rek it tamit rey euh, kii Alwalid kon mun nañu wax ne tamit kilifa boobu nekkoon ci yéeféer yi di Hutba euh, Seydina Hamza moo ko rey ci duel te rey bu gaaw la ko rey bi ñu noppee ñu dem song ki doon xeex ak xaaris mooy mooy mooy mooy euh, astafurlah moom Shayba la rey euh, Hutba moo doon xeex ak xaaris ñu dem jekkali Hut Hutba ibn Rabia moom mu rey Shayba Seydina Alioune rey Alwalid kon noonu la demee woon mm, loolu tamit wone njàmbaaram ba tey ci biir xare bi it li mu rey ci ci yéeféer daanaka mun nañu wax ne moo ëpp lu mu rey ci yéeféer yi ci ci ci euh, xare badar moo waral ba tey euh, xare uhud bi muy ñëw moom lañ doon moom ñu bari bëgg a fayu ci moom waaw kon noonu la taxawoon ci xare badar mu bokk ci waa axlu badar am ci am ci taxawaay bu ràññeeku am ci ndam lu rëy tamit biñ ñëwee it ba xare uhud euh, muy xare tamit bi nga xam ne mun nañu wax ne détails yi dinañ ci gën a agsiwaat tamit ci kanam waaye xare boobu tamit bi mu tàmbalee rek mm, ci njëlbeen bi jullit ñi ñoo dominé li tax jullit ñi dominé tamit moom bokk na si li ñuy tax jullit ñi dominé xare bi ci njàmbaaram euh, ndax moom fu mu romb rek moom day day day day daanal yéeféer yi rek fu mu romb rek euh, moom noonu bu ko jàkkaarloog moom rek mu fàdd la noonu la demee woon ak ñu mel ni yeneen jàmbaar yi nga xam ne ñooy euh, Abu Dujaana euh, Zubayru euh, al Usayd ibnul Hudayr ñu mel ni ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo gën a tax ci njëlbeen bi rek yéeféer yi tàmbalee daw waaw kon euh, ca Uhud tamit mën nañu wax ne foofu la mujj shahid loolu xam naa bu ñu agsi si mujjam dinañ gën a nettali euh, partie boobu kon loolu moo nekkoon taxawaayam si tënk taxawaay bu am solo la si xare yi taxawaayam taxawaayam daal euh, fës na lool ràññeeku na lool sax ci fànn yëpp waaw ci ni muy bàyyee njabootam moom bi muy gàddaay dafa bàyyi lu ëpp si njabootam da leen bàyyi màkk gàddaay leen ñëw topp yonente bi ànd ak jullit ñi ci xare yi tamit noonu noonu la si ràññeekoo ci njàmbaaram ba yéeféer yëpp ragal jaasiyam kenn ñemewuta jàkkaarloog moom waaw kon noonu la demee woon taxawaayam daal mun nañu wax ne noonu la demee woon
waaw jërëjëf sëñ Kadiali ginnaaw bi nga wanee eh, maanaam eh, taxawaayam ci islaam leeral nga bu baax a baax ñàmbaar gi nga xamante ni Seydina Hamza amoon na ko eh, rawatina ci xare yi nga xamante ni doon na ko taxawe loolu it ñu ngi la ci santaat bu baax rek ngir leeral gu gu- gu yaatu nga xamante ni def nga ko ci maanaam li nga xamante ni moo nekkoon taxawaayam kon dañuy ñëw nga leeralal ñu fi nga xamante ni moo nekk mujjug dundam eh, maanaam eh, jamono yi muy s- shahid maanaam dañu bëgg nga leeral foofu bu baax rek
waaw léegi mu jëm nag mu jugu tiis la waaye mun nañu wax ne moo ko may it daraja bi mu am ci lislaam mooy nekk euh, sangu ñu shahid ñi ndax moom ci xare Uhud nuñ ko waxee sànq xare bi mujjoon na euh, ci njëlbeen xare bi sax mun nañu wax ne ci la se shahid ndax ginnaaw xare Badar kilifa yi mu rey rawatina euh, Utba ak euh, Shayba ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay mbokk Hind lañ alwalid di mbokkam it te euh, su ma juumul it ku ñuy wax Hanza la doomu Abu Sufyan Hamza moo ko rey euh, moo taxoon Hind mujj bëgg fayu ci Hamza Hamza daal la gënoon a bañ laata moo tuub ci la euh, gis ab jaam bi nga xam ne Uh, keneen a ko moomoon nekkul jaamam ñu bari dañu yaakaar ne jaamam la waaye du jaamam wax ci ibn xarb la tuddoon di koo xam ne waa Abacha la éthiopien la woon bu aayoon ci xeej ci la ko proposé ne ko boo ma reyalee Hamza takkaay yu ma am yépp danaa la ko jox ki moomoom uh, waa wax ci si boppam ne ko boo reyee Hamza ma goreel la kon noonu la waaye Hind da ko diggoon ay takkaayam takkaay yu mu takkoon yépp la ko digoon te Hind euh, soxnaas kilifa la woon Abu Sufyan kon mën nañu wax ne ay takkaayam valeur bu bu bu bu bu bari la waroon doon jamono jooju wax ci tamit euh, waajal ko bu baax a baax fexe ba gën a tàggatu ba ci xare bi moom yitteem yépp moo nekkoon gore ak am alal bi nga xam ne moom la ko Hind digoon moo tax moom xare bi kenn yitteelu ko lu dul Hamza rek Hamza rek la doon topp waaye ñamewut a jàkkaarloog moom ndax ñëpp xam nañ ne ku jàkkaarloog Seydina Hamza rek moom faatu ngay def waaye la ko doon topp di làqatu ci ginnaaw ay doj te lii ci boppam moom ci boppam moo ko doon nettali di làqatu ci ginnaaw ay doj di fexe ba Hamza woon ko ginnaaw ci la xàcce xàcce xeej bi yi bi Seydina Hamza tourné rek si la ko sàndi mu dal si biiram nee na sax bi xeej bi duggee si biiram sax Seydina Hamza jéem na agsi ba si man bëgg maa rey waaye ñi ma jamee xeej bi metti na ba nga xam ne ci la daanoo bu ne si laa demaat nag toogaat fa la pare moom si xeex bi dara moom loolu rek a ko yitteloon bi xare bi jeexee ba ñuy xool ñan ñoo shahid yonente bi di di day jékki-jékki rek ne dem leen seetal ma diw ana diw jékki-jékki ne ana diw ñu dem seeti ko bu toogee ba si yàgg bu toogee ba si yàgg ne ana diw ñu dem seeti ko ana diw nu mu def ñu dem seeti ko mu jékki-jékki rek laajte Seydina Hamza bi mu laajtee Seydina Hamza euh, ñu ñu ñu ñu ñëw xool ko ñu gis ko gis ne Hind ndekete buñ ko reyee ba noppi Hind dafa mujj ñaawal euh, jëmm ji daal dagg ay dagg noppi dagg bakkani xar dënn bi ba rey yëy res bi waaw ñu ko yéyee bëgg ko wan na sax mënu ko wan mu yàbbiwaat ko kon noonu la def maanaam ndax haine bi nekkoon ci ñoom rek ci Seydina Hamza lu mu leen defoon bi ñu gisee Hamza ci état boobu fekk Safiya mooy rakkam bu jigéen boobu mu ngi ñëw yonente bi wax ne nañ ko téye yonente bi sax wax na fa wax bu yéeme da nee nañ dafa ne sax bu nekkutoon Safiya damay bàyyi noonu jëmmi Seydina Hamza picc yi ñëw cof ko ba mu jeex nga xam ne buy dekki day dekki dekki dekkiwaay bu gën a yéeme daal ndax ku shahid moom kem sa gaañu gaañu nu muy gën a taree rek kem sa daraja di gën a kawe moo tax nag mu ne waaye damay xalaat rakkam safiya waaw kon noonu lañ ko noonu noonu la yonte bi amee lu ko metti lool rawatina ñu ñu nu ñu def jëmmam def ko tamit jullit yu bari ku mel ni Abdullah ibnu Jahsh tamit noonu lañ ko def moom it ku jege woon yonente bi la noonu lañ def yaramam biñ leen di denc nag ñu boole ñoom ñaar lañ boole ci benn barab ci benn bàmmeel lañ leen boole Abdullah ibn Jahsh ak Seydina Hamza ñeneen tamit ñu ñu gasal leen seeni seeni mbokk gasal leen seeni seeni barab yi bopp Seydina Hamza biñ koy sàng sax liñ ko doon sàngi sax bu ñu muuree bopp bi tànk yi feeñ bu ñu muuree tànk yi bopp bi feeñ dañoo mujj jël ay xob benn garab fàtte naa turu garab bi ñu mujj ko teg ci tànk yi ñu muur bopp bi teg ko ci tànk yi denc ko mook Abdullah ibnu Jahsh yonente bi jullee leen am lu ko metti lool ba ne sax su ma jàppee waa Xuraysh it nii it naa laa la ni def saxaaba yëpp tamit dégg yonente bi dogu loolu ñoom ñëpp ñu ànd ak yonente bi dogu loolu ne ñu nit bu ñu jàppee ci ñoom kenn dinañ leen def lu raw lii ci la suñu borom nag wàccee aaya ne déet boo buñ la defee buñ la defee dara buñ la tooñee na nga fayu kem luñ la tooñ waaye nga jéggale sax moo gën si la yonte bi nag jéggale mujj jéggal jéggale mujj sax dem bay tere sax ci xare nit di dóor xar kanam waaw ndax xar kanam dafa tedd dafa loolu yëpp ndax suñu borom li mu wax ci aaya boobu waaw kon waaye nag amoon na lu ko metti lool Seydina Hamza bi muy ñëw Médine moom kese moo ñëwoon njabootam yëpp ñu ngi màkk ku si ne yaa ngi lijjante say ñooñ ku si ne yaa ngi yaa ngi ñaanal say ñooñ yaa ngi def yaa ngi dëjal yaa ngi jooy say say say say say ñooñ ñu ñu shahid waaye Seydina Hamza kenn jooyu ko daanaka waaw yonte bi jàmbat na loolu maanaam wéetaay bi mu ñëwee moom képp gàddaay ngir lislaam mujj shahid mujj ci shahid moom képp nii loolu tamit di lu yéeme xam ne kon noonu moo nekkoon mujj mu jug Seydina Hamza ñu denc leen foofu ca Uhud ci boppam barab bi nga xam ne yonente bi daan na ko ziyaare ji ba si mujjam sax dem na fa ziyaare ji leen ba ziyaare ji leen sax day doon loo xam ne dañ koy dañ ko fonk lool jullit ñi ku dem ba foofu it waaw àgg fa it day doon loo xam ne boo ko defee da nga xam ne di nga jëf-jëf joo xam ne yonente bi daan na ko def mooy ziyaare ji mboolem saxaaba yu shahid ca Uhud kon ba tey barab boobu tabaxoon nañ ko tabax ko mu doon barab bu yaatu waaye mujj gi waxaab yooyu ñoo ñëw toj ko foofu nag ku fa dem tey ji ci Uhud di nga gis barab bi di nga gis ba gis barab Seydina Hamza barabam moo ci gën a ràññeeku mooy moom ak Seydina Abdullah ibn Jahsh lañ boole waaw kon mun nañu wax ne noonoo nekkoon mu jëm wax si nag ak hind yëpp ñoom donte ñoo sabab loolu mujj nañu tuub ñoom ñaar kon mujj nañoo doon ay jullit loolu it ñu xamee ko noonu daal ñu xam ne hind mun na doon mujj na doon jullit jullit bu dëggal njullitem wax si it mujj na tuub ba mujj def njàmbaar yoo xam ne xeejam boobu mu reyee Seydina Hamza mujj na si rey it ku ñuy wax Musaylimatul Kazzab mi nga xam ne moo doon woote ab yonent ci laa wax ne sax sama xeej bii moo faat ki gën si nit ñi ci jullit ñi waaye moo faat it ki gën a yées tamit si yéeféer yi waaw dafa mel ni daal dafa jéem a jotaat boppam ci jëf jooju mu def mu jëf waaw kon loolu tamit daanaka bi muy nettali xew-xew bi yonent bi la ko nettali loolu it xam naa ci yeneen jotaay bu ñuy àgg ci fatu màkk ak yooyu wala war a waxtaanee jëm yooyu dinañ ko gën a leeral kon loolu moo nekkoon mujjub Seydina Hamza
waaw jërëjëf sëñ Kajali ci leeral yu am solo yi nga xamante ni def nga ko ci maanaam Seydina Hamza ci ba mu ba mu ba muy shahid dugg nga tamit ci fa am solo ci maanaam ñi sabab jëf jooju nga xamante ni mooy Hind ak Waxshi ak waa Xorayshi yi nga xamante ni ñoom it ginnaaw xare Badar amoon nañ noonoo gu rëy rëy rëy goo xamante ni amoon nañ ko jëmale ko ci Seydina Hamza ngir maanaam li mu def maanaam ci ci xare gi maanaam ñi mu jot a rey ci xare bi loolu it maanaam mu sabab sabab sababoon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek am yéene maanaam fexe ba nu ñu leweta nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko reyee nuñ reyee Seydina Hamza waaye